mais oui ça va je suis très bien ça se passe bien. mais mais on verra alors génnewu la si de ndax mooy te mu réer ko. yow toogal foofu. Big Taf. on a des questions pièges. ah est-ce que tu es prête la star. oui je suis prête. sur tous les plans. oui on est là oui c'est sûr. Euh, ouais. mais Sophia. il faut fi juumee. yow bàyyi kii yow. ah boo juumee ñu xam nit rek la. <laughs> déedéet génnewu la ci de. <laughs> c'est la star Chadia. et qui d'autre parmi les élèves. Big Taf oui. kan moo bokkaat ci élèves yi. Euh, élève bi nga xam ne nag moom moom laa den daal ku soof. man ñemew ma ko. ah bon sama nawle la sama xarit la sama nit la sama compagnon la. mais Sophia je suis pas d'accord yemaleel élèves yëpp. non mais dama koy présenté rek non yemaleel sama seex la daal. waaye ñemew ma ko. ah kon baax na ndax day dóore xool ko boo ñee ñoo xaw a <laughs> am nawle bu bees. <laughs> compagnon nuyu naa la. mais maa ngi lay fay Sophia. waaye yaa ngi si jàmm. sant naa bu baax gaynde Saloum bi. waaw maa ngi nii toog fier de toi. merci beaucoup macha allah. kontaan naa tey tey doo gisee initiative vacances doomu Fouché. non très nice euh, déjà comme li ma gis rek ci suñu mbokk yee nekk fële. man moo ma gën a touché. ñun suñu bos sax man instant bi intéressé wu ma. waaye mhm. les ñee dañoo bokk ci ñun. te dañ dañ leen ni dañ leen ni pousse lu bari te ñun ci ñoom ci ñun la ñu bokk. Mhm. donc c'est très important di la féliciter di féliciter équipe bi yëpp ndax équipe de gestion yëpp ñoo ko def. Mhm. donc di wax ne ñoo ci classe bi rek xam naa am moom mooy jël premier. loolu moom leer na ngi leen di xam nañ fi nga toll ci niveau d'étude animatrice nga yow bac plus 5 xaw ma. Ah, yàlla baax na baax na aujourd'hui euh, ki nga toogal nag il fait partie les plus riches du Sénégal parce qu'hier même il nous a donné beaucoup d'argent et y a une application dont il a un million de francs je vais pas citer l'application quand même. bon wow. Ah. sous mes yeux. je, l'ai découvert la wow. Ah. somme. Uh-huh. donc euh, j'étais tellement. Euh... surpris. Ouais, effectivement. Euh, que voilà, un pauvre et une telle somme dans son téléphone. Vraiment. C'est ça euh, qu'on appelle l'arnaque. Voilà, ngi nax les Sénégalais. Ouais. donc euh, feeñal nañu benn arnaqueur. Mhm. maintenant il faut savoir aussi fi ngeen di def seen xaalis yi. dëgg ndax dem on a mangé une somme de cinquante trois mille et quelques. te lépp il a payé. naan sunu ay jus moo ko moo ko fay. waaw bu ñuy dem bëggoon nañu jox paas mais ak sunu ngor ne ko doy na. mais may na ci biti may na 10 biti. ah yàlla baax na pauvre ñu ngi lay nuyu euh, maa ngi lay ziar bu baax madame. ndax dama xam madame laa jàkkaarloo xamu ko ma nii. di métti na torop ndax toog di toog sama wet sama tiit. Euh, aras ma nga <laughs> te yàlla bu defoon képp ku wax loo xam ne daa dëng mu wàcc ni ko kaay. da <laughs> juum. maram doo dugg ci classe bi tey. man maa génne loolu man. da ngay bañ li nga yor de waaye bu la leeree ni wax naa ko en direct ña dem nag. <laughs> gis nga arasa ngi ñëw. yëngatuwul de arasa yëngatuwul. <laughs> waa baax na nañ dem. arasa ngi maa ngi nuyu élèves yëpp di siyaar élèves yëpp di wax ne tey xol laa ñëwee classe. ndax la a ah, démba. ndax sama naw la daa toog di am. waaw te xam naa ni soxla ma ma ñu dara tey. nee na il bon. il a bon mais mois j'ai pas fait les bons mais les bancs de la banc de la rue. waay moom de la classe. def man banc de la rue damay wër di taqale fu ma gisee e boole koog moom a bu mu A B C D E F G. Euh, H garde tes lettres pour toi. parce que tu en on laisse le professeur continuer avec ses élèves dans la classe. Professeur Big Donc, euh, à vous l'antenne. papa moom mi ngi nelaw rek dama sëmu <laughs> rek alors téléspectateurs aujourd'hui vous avez la classe des euh, j'aurais même dire les nullards ou bien les plus bien euh, Mbodj Mbodj non c'est Amdi Amdi qui sera là aujourd'hui alors ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax baax comme euh, chaque jour di ngeen am benn rubrique aujourd'hui vous avez la classe euh, on a des invités ce sont nos élèves et on a beaucoup de questions, des quiz musicales et des questions de culture générale, histoire et géographie. Vous aurez aussi baccalauréat. Et les questions, on va démarrer par euh, aujourd'hui. Ah tiens, les, non, comment c'est Gouni Doukouré Hein Ok, comment c'est on y va, mesdames messieurs, si c'est bon, téléspectateurs et euh, chers élèves. Si c'est bon, on commence par euh, les questions baccalauréat. Et première question, écoutez attentivement. Première question. Nom de famille sénégalais, commençant par la lettre R. Écrivez un nom de famille sénégalais commençant par la lettre R. J'ai bel et bien dit nom de famille sénégalais commençant par la lettre R. Vous écrivez. Écrivez un nom de famille sénégalais commençant par la lettre R. Vous avez 10 secondes, hein? Boss, chronométreur, s'il vous plaît. Nom de famille sénégalais commençant par la lettre R. Et la régie, s'il vous plaît. Me souffler un nom de famille sénégalais commençant par la lettre N, c'est bon? Ou bien, je, choisis une autre lettre. Je peux choisir une autre lettre. Oui. OK. Maintenant, je choisir une autre lettre. Alors, vous avez déjà écrit ou bien? D'accord, je change. Nom de famille sénégalais commençant par la lettre S. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. 10 secondes, boss. Pas de tricherie. Pas de tricherie. Alors, c'est bon pour les secondes. On va commencer par Am Bongo. Am a bel bien écrit Sale. Il a trouvé. Merci. <laughs> Abdi Mignon il a écrit Sok. non tu as eh, comment. Silip Silip. Abdi Mignon comment comment tu peux écrire Sok. c'est Sok mais ça reste ça reste c'est faux. mais c'est on peut comprendre et Chadia. Chadia elle a bel et bien écrit Sow. Elle a trouvé. Merci. Il a trouvé aussi, merci. Et enfin, Fifita Sec. On peut dire que les candidats ont bel et bien trouvé, sauf euh, un petit qui a manqué une lettre et qui est la lettre C. Ça peut se comprendre. Si c'est sur 10, vous avez waaw <laughs> d'accord alors nga ni am mais lan ngay jox di denc une lettre bu ko lekk bu ko lekk am ni est-ce que xam nga ni dàqale day jege léegi léegi yow alo on commence mot français commençant par la lettre L Et il ne faut pas souffler. Mot français commençant par la lettre L. Eh, concentre-toi. Tu peux effacer, tu peux effacer. Non, mais c'est pas facile. Mot français <laughs> commençant par la lettre. Vous avez 10 secondes, Par la lettre L. Ah, ah, ah. <laughs> Euh, Abdou Mignon mënoo nekk classe di tricher Sadia Sadia ok ok ok ok les dix secondes bon ok c'est bon je commence par Abdou Mignon donne-moi le micro s'il vous plaît am ah. Abdou Mignon lan nga bind. xanaa mënoo lire <laughs> ah. yow boo mënul lire waxal nit ñi. am na mu ñëw c'est L E accent aigu et dire quoi lekk lekk c'est quoi. mooy lekk rek. lekk la yow. ah gën lekk foo lekk lekk la lekk ban yow. lekk rek moo français la wala moo olof. lekk. mais j'ai beneen lekk anglais anglais la. ay ay ay ay am. waa Terkaay zéro. ah bon. loolu Regarde bien, bien ce qu'a écrit, ce qu'a écrit. Ligue, il a, écrit Ligue. Au mot au commencement par elle. Français. Français. Oui. Ligue, quoi Ligue, c'est Wolof ou français Mais, c'est le travail. Tu pas fait le banc. je fais pas le banc, toi. <laughs> c'est faux. Yénema. Fifita. Qui est-ce que Fifita Sérieusement. waruloon bokk la langue xam na ne animatrice la làmmiñam la am di kii <laughs> ok Doucouré Licouré d'accord Doucouré taxaw ngay naan su Doucouré lait merci beaucoup et je termine avec euh, ok lune Merci Chadia, félicitations. Effacez les ardoises, s'il vous plaît. Vous effacez les ardoises. Alors, alors on, va, continuer avec euh, toujours baccalauréat. Hein euh, alors Légumes Commençons par la lettre C. Légumes. Euh, Amdi Mignon, xoolal Légumes commençant par la lettre C. Yow rek na Légumes commençant par la lettre C. Eh, boo bindee da nga nëbb sa ardoise yow. 10, vous avez 10 secondes. D'accord. en guise de rappel bu fekkee kenn ak keneen nuroo nañ li ñu bind ñoom ñaar dañuy dem en compétition ñu jox leen beneen lettre top c'est bon am division je commence par toi <laughs> donne-moi le micro encore yow boo sonn lu ma sonn barki yàlla waaw nga élèves yu turbulents yooyu nga xam toujours profité lañu teg choc waaw am yow dama ne la bindal déjà da nga dessiné yow da nga ne loo wax. une légume commençant par une lettre C. waaw ma desel la ma defal la légume. ba li ban légume la. waaye yow lan nga dessiné. lii xamoo ko. yow waxal lan la. du eh, concombre de. <laughs> lu ñuul loolu. lu ñuul lan. basalse. c'est aubergine. aubergine waaw c'est c'est. ma defal la aubergine. Ah, mais légume la. waaw ah. mais c'est aubergine du légume. c'est ban pan lettre la commencé c'est. Obersen. yow eh kii. yow bàyyi ko non non non non non non Sadia. je continue par Sadia j'ai bel bien dit c'est. non c'est. Eh, aubergine. alma micro bi c'est légume la. moo tax ma desel ko. Sadia am. eh vous avez bel bien entendu j'ai dit légume commençant par la lettre C non. Sadia naan ma S laa dégg. kaay je croyais que c'était ok yow salade la ma bindoon salade. am yow génn ne indi alors am carotte mais l'écriture n'est pas bonne eh? hein. oh my God. <laughs> Ah non, oh, on aura une compétition avec euh, Fufuta parce que Fufuta aussi, elle a écrit Donc vous deux là, on va vous départager bientôt avec une autre lettre et on verra bien ce qu'a écrit. Et lui aussi, il a écrit Donc en compétition de ces trois personnes. Ok. Alors, pour les trois, parce que déjà, Shadia et Amdomino, ils ont faussé. Et pour les trois, Fifita, Dara faussé. Euh, Alors, par la lettre B, par la lettre B, légumes commençant par la lettre B. Rapidement, s'il vous plaît. Vous avez 5 secondes. B. Légumes. Non, c'est pour les trois. B, Pour la lettre B. Karajo yaa ma ko jox <laughs> ah, on verra peut-être qu'ils vont trouver B j'ai bien dit B oui eh waay Sam eh waay Sam eh waay B monsieur oui B wala c'est B J'ai bel et bien dit B. B. xam nga ni B dootam amu ci B. Adama. Sural ma. Alors maintenant. Fifita a écrit Basanté. Ok. Doucouré. ok yow piment je vais dire be nga may bindal piment batangse ñoom ñëpp dañu faussé ah on continue toujours un objet objet qui commence par la lettre betterave D'accord, betterave. Betterave, légumes commençant par B, betterave. Merci beaucoup. Alors, un objet commençant par la lettre Z. Objet. Z, Z. On a, eh, eh, yow jabaar objet laa wax de objet par la lettre Z objet par la lettre Z am ni billaay wax bul ko Allez, je vais commencer par euh, Shadia. elle a écrit Zing. Ouais, merci. Peut-être euh, c'est l'écriture qui n'est pas bonne, mais elle a, trouvé quand même. Shadia, tu montres encore ça. Eh, hey, eh, eh, arrêtez. Eh, yow da parce que bindoo woon. Bindoo eh kii bind comme Shadia mais dafa tricher. dafa tricher. Euh, Fifita mii sax yow bu ngay wax ni ngay dëpp sa ardoise je te jure non non non si danañ foog man aw mooy bët bu man du kuréel si al bii du sa xam-xam cinq bii du sa xam-xam de je te non. monsieur man maa moo def nii rek euh, mais j'ai mes diplômes c'est moi on écrit comme ça c'est Z N G. jury j'accepte ou Hein C'est avec C. D'accord, faux. Amdi Mignon. L'autre, Zimbabwe. déjà moom li mu wax ak li mu bind amul dara lu ci jege kii wóor na yàlla yow da nga neex. Habib lu tax nga def lii yaa taxaw fee na ma bind Zimbabwe. pour terminer les questions de baccalauréat rapidement. Et vous aurez 10 secondes. Boss, vous allez m'aider sur ça, 10 secondes. Alors, un pays commençant par la lettre. Z. Oui. Pays commençant par la lettre Z. Ah, ah Habib, Habib, Madoulette. secondes. Pays commençant par la lettre Z. Rapidement. eh, eh. Non, on verra, on verra, on verra. Pays. Pays. Ah, aïwa, Isadia. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Eh, yo, eh, hey. Manu Lenti, yo, qui vous Je commence par Doucouré. <laughs> non, non, waxal benn. Alors, merci. teg teg alors teg leen seen créé s'il vous plaît. <laughs> Doucouré. Doucouré non Doucouré effacer benn da ngay da wax benn. benn ngay wax ma ngay dem alors je commence par Amdi Mignon le temps que Doucouré choisit parmi ces deux. alun am maa mën a jàng loo loo tudd loo wax yow Ziguinchor Ziguinchor pays la wala wala région Ziguinchor waaw pays la ban ban continent la ne ginnaaw Sénégal yow déjà li nga wax c'est faux yow saq kene bi ministre li nga bind suuf la gën a jege wax jéebaa jéebaa moo ne si ngay soor. jéebaa mooy laar du man question yëpp zéro am amoo ko benn am un. waaw ma question yi nañ wax dessin dessin baax na. wala phrase bu gën a gudd a écrit Zambie. Chadia a trouvé Chadia. Doucouré et Chadia en compétition parce que lui aussi il écrit Zambie. en bongo aussi Zambie. Alors Fifita, Zambie. Alors on va choisir une autre lettre pour les quatre personnes. Une autre lettre. Kara. Ok. Un pays, commençons par la lettre N. Oui. Par la lettre N. 10 secondes. N, N, N, oui. Amdi Mignon, il y a beaucoup ok Abdou ñëw Abdou ñëw il a écrit maman maman maman lan la yow. li nga wax la. maman lan man pays laa wax de. am am yow barki yàlla da ngaa yem am loo bind yow am. Niger. ni lan. Niger. non non non on va. dama ne eh, eh, eh, man sama yaay ma indi si pays bi. moo tax ma ne ko maman. Hmm. waaw d'accord waa pays de commencé par N. waaw sama yaay léegi yow say ay maman man la laa N wala M. Eh, M. yow yow Niger nga bind Niger. non mais l'écriture n'est pas bonne même la prononciation n'est pas bonne Niger Niger pour euh, Fufita elle a trouvé Doucouré Doucouré aussi Niger. donc ex aequo en deux les deux et Chadia Namibie Namibie pour Chadia d'accord et on continue. mais Moussé. Moussé on continue on continue. Moussé. Moussé euh, am na ku mu àndal. moi j'ai bien écrit Niger. non bindoo Niger de Niger nga bind. alors on continue histoire et géographie rapidement parce qu'on doit enchaîner avec les autres jeux alors. Maintenant, ça ne vaut pas la peine d'écrire. Vous aurez le micro et vous allez répondre rapidement, d'accord Je commence par euh, celui qui dit monsieur en première, d'accord Maintenant, première question. En quelle année s'est passée la Deuxième Guerre mondiale euh, je vais choisir qui exactement Je vais choisir qui Doucouré pour voir Doucouré. kii moo njëkk a loxo laa bëggoon wax. Doucouré nga de. sama ngor may ma loolu kii a yëkkati loxo laa la. d'accord am na mu ñëw. la question. tenez ça d'abord. la question. oui. à quelle année s'est passée la deuxième guerre mondiale. en 1998. Ukraine et Zambie.

1939 jusqu'en 1945. Alors, deuxième question. Quelle la première capitale du Sénégal Première capitale. Première capitale du Moussé, Moussé, question. Histoire et géographie. Dans quel continent se trouve l'Angleterre Dans quel... Arrêtez de souffler, s'il vous plaît. <laughs> Dans, quel... continent se trouve... Ah, Londres. ok d'accord garde ça pour toi on verra kii. kooku mooy sama kilifa Londres. Londres d'accord merci beaucoup. Am dans quel continent. joxol Sonia micro bi non allez-y Am allez-y. ok d'accord donne donne donne le donne ça à Sonia. barki yàlla yéen ay élèves yu réew ngeen. wóor na yàlla bi laa yéen a ngi sama xol yi na yàlla. Londres. dans quel continent se trouve. Quoi, dans quel continent Ah, je sais pas. Vous savez pas euh, Fufita Je pense Amérique. L'Amérique euh, Je pense, euh, oui. Vous pensez l'Amérique ouais. Alors, je, je, je répète la question. Dans quel continent se trouve l'Angleterre Continent. Eh, Alma, ah, Alma. ngay compter sa loxo yi nii yow it am continent j'ai Bélibéri waaw continent boo ko Angleterre. Londres la. capitale Angleterre. mooy Londres. continent continent Angleterre. mooy boule boobu du tourner ah te mu Afrique. alors je pense que ils ont vraiment faussé am. Ah. c'est Asie. am. Océani. Océani, ok. Soja. Je sais pas. ah. <laughs> Eh, ci jury bi kenn am ci kenn xam na ko ñu fii ah ah Adama Adama Adama kaay kaay Adama kaay dans quel continent. loolu foofu la. l'Angleterre se trouve dans quel continent. Angleterre Londres. lo yow eh yow avancé la. Sophia kaay. Sophia ti nga bokk yow ñëw question yi da ngeen i jaay mën a poser rek. tey moom yéen ey wa demal ci sa nawle bi instant ku ko soufflé lay wër mu ni ku gaawal dañuy liggéey loo ma laaj dans quel continent se trouve l'Angleterre Angleterre waaw mais man fan laa jógee yow fan yi yow eh monsieur ah c'est Éthiopie maintenant on continue ce continent européen Londres fu ne Angleterre fu ne yow Angleterre fan la nekk waaw. Moussé. c'est Europe je pense que c'est Europe. non at ah, bu waxee ba pare. on continue. quelle est la superficie du Sénégal. superficie du Sénégal. nga ne am. ma ne ko démb rek moom laa réeré loolu loolu li ngay wax nii. superficie du Sénégal moom laa réeré démb. jël micro bi. fiir <laughs>

cent quatre vingt dix neuf mille quatorze carré. ah Idy yow yéen ñaar ñi ñu may teg gàcce ngeen fee ñuul am. Sadia. cent quatre vingt dix neuf xaw ma ñaar. boobu nga ko xamulee. Euh, am di mi ñëw notre meilleur élève. yéen ñaan ngeen. Ah, li nga ne am yow. dix mille sept on peut dire que.

les équatoriens. Andy ok merci. am na les équatoriens. am. les acoyens. barke yàlla yéen a ma tooñ yéen classe bi Sadia. les équatoriens. ok. <laughs> ok merci. vous avez deux réponses soit. Vous dites tout simplement les Guinéens ou bien les Équateurs guinéens. Alors, question musicale. Allez-y, allez-y. Monsieur, c'est quelle phrase il est plus long dans la France C'est anticonstitutionnellement. C'est l'élastique. <laughs> Et euh, pourquoi élastique Parce que t'as gagné en France. Alors, avec la complicité de la régie, Cuse musicale, c'est simple. Cuse musicale, c'est pour euh, vous cinq. Grégoire daf may tegal benn son mais dañ koy commencer tuuti rek dagg ko ngeen wax ma son bi kan la soit titre bi ou bien l'artiste et si vous voulez vraiment gagner plus de points vous pouvez dire l'artiste en même temps le titre d'accord mën ngeen wax artiste bi ak titre bi soo leen ko xamul ngeen wax ma artiste bi wala titre bi c'est bon alors Vous allez m'aider en regardant qui lève le doigt en première, d'accord? C'est bon que? c'est parti. Merci. alors on réécoute encore on réécoute jaru ko kan moo njëkk a yëkkati loxoom am di am am tiririn baaw baab Sadia c'est Viviane et euh, Fou Malade Viviane et Fou Malade taxi waay taxi ma taxi déjà trouvé jox ma beneen ñu xool yow yaa ma teg gàcce sa yuuxu bu rëy bi Baye Abdallah non non non non non non c'est pas changel changel changé ma boobu teel am c'est c'est un artiste mi ngi dund il est vivant. c'est qui Abdouras. ay ay. Ah. Pastaay. ah merci beaucoup. alors allez-y ma beneen ay am wa. sop sop sop sop sop ah kii Sadia joxaat non non bu ma joxaat son bi non bu ma joxaat son allez-y ah non amul joxaat son euh, eh, du moom du Assane Gawlo. Eh, eh, taw ma mani kii Lamine Signal la moo nekk ci internet bi di ñaan di ñaan. ay la la la Lamine nga xamante dafa ne dañ koo liggéey. ay ay moom la ay am ay jox ma beneen jox ma beneen. alors donnez une autre musique s'il vous plaît. donnez am am am am am am am. mais arrête c'est mon papa Ndiaga Mbaye et Youssou <laughs> Mais Apolline, c'est moi. Donnez-moi, donnez-moi une autre musique, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est Babma, Linkile. Babma Linkile. Linkile. Ah, maman, de toute façon, moi, c'est. Faux. C'est pas Babma. Qui Fafadi. C'est faux. Ah. C'est fatal, je pense. c'est fata c'est faux ay fifita sagalal gaay Sophia Thiam am ni mignon doxaat soo bi nga continuer ko tuuti doxaat nga continuer ko tuuti kët kët kët kët kët kët kët kët kët kët kët alaaji boo leen ma waaw boo leen ma suflewul kan la man mi sax xaw ma ko ah. kii waa Ceddo la waa Ceddo. non non la waa nekkoon. laay laayloo. Ceddo ak Xamdel. ok <laughs> misaal la. non non non ko tur jox ma beneen. jox ma beneen. posal posal. Sadia c'est qui Sadia Sadia c'est qui eh non arrêtez s'il vous plaît arrêtez Sadia c'est qui <laughs> Amdi ça c'est Ambongo <laughs> alors merci beaucoup merci merci beaucoup alors Habib merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci alors Ah, mes chers téléspectateurs, c'était la classe avec nos chers élèves. Et je pense que vous avez bel et bien aimé. On peut pas